asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Mame faati Diop dëkk Touba marché Ocass waa élève la troisième la arrêté maa ngi jàngee borom beleel Mbàkke waa li ma liggéey maquette Touba la juma Touba bi maa ngi ko liggéeyee per loxo laa ko liggéeyee per ak fiil moom laa ko liggéey maa ngi ko liggéey deux semaines deux semaines waaw. non lii dama toog rek mu ñëw sama xel mais jànguma ko fenn waaw am na yeneen yu ma ci defar dama si defar yu bari dama ci defar ay boîte mouchoir ay plate fruit ak yeneen ak yeneen yu bari per yi marché laa ko jëndee li ma njëkk xalaat defar ko benn chaque su bébé laa njëkk defar si per laa ko defaree léegi après ba ma demee ba xam yoon bi si lay inspire di xalaat di defar ba tey ma ñëw defar maquette bi ak yeneen ak yeneen tam mën naa see defar maquette jumaa ji laa jël après ma di ko xool ci laa liggéey lii non gisuma ko fenn parce que lii moom bàyyiwul fii mësuma ko gis fenn non liggéey bi moom kenn jàppalewu ma si man rek maa ko doon liggéey non non amul kol lépp fii la comme kuy ràbb rekk ak loxo waaw yow mës mës nga jaar ci de formation kii professionnelle. non non mooy ñuy jaar foofu. mais am nga yéene dem ci de formation yooyu ñu dem la. waaw am naa yéene moom bëgg naa tam ku ma jàppale parce que man xalaat damay doog a door awma kenn ku ma jàppale loolu moo tax léegi ku ma soxla wala nga soxla si bagage bi danga may contacter si numéro bi cent 76 255. 74 27.